réew mi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm yaakaar naa ne kii ñu toogal miin nañ ko ci kanamu sénégalais yi kii ñu toogal sénégalais yi xam nañ ko. yaakaar naa ne muy Cheikh Abdoulaye Diop Khass nekk nit koo xam ne nii réew yëpp dañ koo ràññee ci lu baax waaye nag tey ñu toog ak le grand boo xam ne mu ngi ci wetam di wulli balaa ñoo ñëw ci wulli dañuy jox Cheikh Abdoulaye Diouf Cheikh Abdoulaye euh, Cheikh Abdoulaye Diop Khass bu nuyoo ñaanal ko réew mi ñaanal ko ak lépp lu muy wax ci réew mi rek ñu ngi koy nuyu ñu ngi lay nuyu Fadam maa ngi lay fay macha allah di kontaan di leen masawu coono di masawu coono ñu di ñëw ñëpp daje ci bis bi di ñaan liñ fi dajale di liir bi yal na yàlla guddal fanam te yokk ñu yokk ko wér. ah di nuyu sama waaj rek wulli di nuyu sama waaj yi ma dendal coach macha allah di la nuyu Fadam. xam naa war nga koo miin kii mooy coach. xam naa ko. voilà mi miin nañ ko. di nuyu Lamine di wax fii kërëma borom Dakar Plus macha allah jërëjëf. aja yaakaar na ne Cheikh Abdoulaye Diop xaaj ñu ngi lay nuyu tey jii ñu ngi fii ci ngénte loo xam ne ni tey jii euh, fii ci sa kër sénégalais yëpp ñëw fii daje bi ci mbooloo mi bari lool. Mm. ah am am nga gan. waaw waaw <laughs> ñëw na <laughs> <laughs> xaritu Cheikh Abdoulaye Diop xaas. ñu ne tuddee Bamba Xaadim Rasul aca si Abdoulaye Diop looy wax euh, mbooloo mi fi daje tey jii yëpp ci xew bi am sa kër kontaan rek kontaan rek di wax ni vraiment lii moom euh, daf ñuy soññu ndax nit ñi kenn moomu leen a te kenn mënu leen a jox it lu leen jaaxal te it joxe sax amu fi baax a fi am ak sopante bëggante moo waral nga ñëw Lamine ñëw ñëpp ñëw daa rek tudd ñëw tudd rek nag yàlla xam na ko sax du ma ko yëgle mais après te nga xam ni nit moom dina toll foo xam ni da woote rek waaye xamoo fi muy yem. Uh-huh. loolu daal kontaan nañ ci ma. kii ngeen dafa la toll ci yow ba tax nit ñi ñëw musique waaw sama rak la bokk ndey ak baay. Euh, moo ne ci kaw man comme yàlla dafa dogal rak yëpp ci man lañ nekkoon moom it moo nekk ci kaw nekk ak jabaram te li ma wax sànq rek jabar ji mas naa ko wax suñu dugub daanaka man sama ñaareel laay wax ndax xam naa ni lu mu xam ni bëgg naa ko rek maa ngi ca te comme du ma doyal ataaya wulli ba deux heures du matin sax daf may ataayal fii di ma indil pour nga xam ni loolu tuutiwul mooy li ñu ko wax rek ñu ngi koy ñaanal euh, yàlla guddal fanam gën koo bàyyi ak jëkkëram. waaye mhm. jëkkëram daal ñoo bokk ndey ak baay mhm. la. lan mooy loolu nga jamono bi nag damay wax ni pour ñun ñëpp ku ci nekk njaboot boo ko defee defe naa su ma juumul léegi. yaay àgg suuf bàyyi leen ñoom ñu féete kaw boo ko deful duggee ngeen ànd adduna bi moo tëddee noonu te nit ñi te yàlla xam doy na mais vraiment moom. jëkkër ji saak dañ ko dama dama ko laaj ko koy tuddee doom ji mënuma yow xoolal ku la neex rek nga tuddee ko yàlla xam na ci laa ko tuddee munaas mi nga xam ni ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak comme man li may wax rek bay ci sa wewu tànk te ñun suñu famille yàlla dafa dogal benn la doon nekk man la ci yàlla jiital ma nangu ko nag nangu leen i jox euh, li may wax rek buum naan leen yeewu leen fu leen neex diri leen dóor leen ñun man la yàlla jiital la yaakaar naa ne tey jii loolu ci ban point la ñuy yem ci wulli a doog a ñëw doog a mujj ci sëñ ndax gis nañ wulli ñëw toog ci wetu sëñ bi euh, Cheikh Abdoulaye Diop Khass wulli nekk ci préparation combat wulli da nga fay ñëw pour ut ñaan wala da ngaa pour daw làqu ndax fii nag waa kër euh, Abdoulaye Diop Khass dafa saf géejawaay te gis nañ ah diggante mag buuse lu yaatu la nga ñëw fii làqatu si loolu ban problème la lan la wala dafa bëgg buuse dafa bëgg a nangu sa nit wala lan mooy problème bi madame maa ngi lay nuyu di nuyu Lamine nag ñëpp ah. di sant yàlla. daa fii ma ñëw fii ci kër Abdoulaye xaas. waaw defe naa ba ma fi ñëw. Hmm. yàgg na xaas. Hmm. këram gii. Hmm. yàgg naa fi ñëw. kenam gu bees gale. ba ma fay dem taxawu fa. dëgg la am na benn série boo xam ne yàgg na. fa lañ ko tourné fa lañ woon. ci site ci site ba wane rek. xaas day xam ne nu yàgg. bi muy def série koor gi chaque jour te dama doon wópp ma participer mhm. boobu këcca pa nga États-Unis di wooyaan di def bu ko neex ah, yaa ngi indi problème de xaalis nag sama nit tey nag rakam di ngente ma ñëw sanga ko parce que xaalis dafa baax xaalis nit ku baax la sëñ Bamba wax naa ko sëñ yi ma xam ñëpp laa xam si Touba ñëpp ñi ma xam sëñ bay na mais moom day day nit ku baax ñëpp la xaas musuma gis né li ma ko nawee mosuma gis mu bëgg ci sëriñ yi wax lu ñaaw wala sëriñ yi sagant seen biir mara sëriñ yi am sax sëriñ yi ko doon saaga mais génnaaw yu pour rek gaa nopi noppi nit nga personnalité do xulo do xex do xasante loolu la ko nawee mais Wouly dañu gis né yaa ngi nekk ci préparation combat pour le 12 le 12 novembre ngay bëri koo xam ne mu ngi États-Unis di liggéey liggéey bu métti. billaahi liggéey. dëgg ma wul liggéeyul. man barke sa ñaari fan la entraîné toog. wulli ndax lii ngay def ni fexe nga ba dugal buuse ci combat bi ndax Ablaye Diouf xaas mi sax nga jege nii ah dafa mel ni fii kër buuse la de. xaas mi mënoo ko jaxaseeg buuse. Ah, xaas bi waaye maag buuse yëpp fekkoon mën naa ñëw toog fii tey. xaas ba nag Calzo nu ñëw fi def signature bu rëy rëy rëy hmm. xaas nu ñëpp xaas mbëri Sénégal yëpp la bëgg comprendre nga combat bi sama du ma la wax li <laughs> mu ci door ngay <laughs> waaw kay ah dama xam ne xaas daa jege Balla Gaye te Balla Gaye mooy ngeen bu buuse est-ce que xam nga ne Balla Gaye mën la faral dégguma Balla Gaye mën la faral ak kan foofu laa yëpp Balla Gaye moom lu lu leer toog nañu foo xam ne ni maa bala nga ñëpp ñëpp ay xarit bay jóob mi muy xaritam sama doom laa ko tudde mm-hmm. naa ko doom bay jóob ñu bokk ay xarit yu bëree bëri fekkati nañ guddi bala sama xarita mais ndax état de forme bii bëri naa ak la Lamine état bii ma gis nii ci wulli ndax wulli mii mën naa téye Boucher mi ma gis mu nekk Amérique waaw poids bi xaw naa wàññeeku mais Boucher nee na ko ëpp moyen nee na lamb xaalis la te nee na wulli yàlla def na la abutul moyen. coow amna moom am naa moyen waaye am moyen parce que xaas mi suñu kep moyen la. moyen bi mu am nak mom man awmako ko. mooy moyen boo xam ne sa mbay mbayaan wuyaan. wulli gina ko États-Unis legui amna kene kumu ku mu jël xaw nan nar dede du mo njaay benn waay bu xex bu rek ndara su la de Souleymane Naar waajur la léegi bay na ñëpp way waay ki moom la jëlee waa Souleymane day am teraanga dina ko def ci doomu aadama yi kon léegi ku am teraanga rek lay jël ah mais loolu mooy ma loolu moom la concerné ba pare moo waxal bi wulli wulli moo njaay bi mi wulli li jël laa ko jëkk dëgg wulli fadam wulli waxal ci ci combat bi yow mi barke alaaji Fall waxal ci combat bi buuse mi ma gis yow teg na ay bagages am pour bëgg laa daan. yow na nga ma moytu bu baax. voilà voilà eh, à part de tey. bu ko joxoon loxo bu ko joxoon loxo. kan bu si sa waay la. dëgg la <laughs> ak màggal gi. ba pare combat bi day combat boo xam ne sans caaxaan bu doo jeexee combat bu ma foog lay bëri. waaw boo xam ne xam naa fi mu may yóbbu xam naa itam këccëg bu ma daanee. fan laay nekk. non moom koy dellu Bawol rek kay ca mbay ma. <laughs> amul sa te loolu dara dara jël ma ko. it daan dama xool dama gis Alaaji Mbay ni mu daan. waaw da koo liggéey ba mu yàqu da ko daan. Alaaji Mbay léegi dafa xëy. waaw on dirait ko yërëm sax ndeysaan eh, eh, eh, euh, ki nekk Pikine ragal boobu. Cisa fay na fay na yàgg na man nag bëgguma fi si yàlla. mais dama gis ne Boucher dem na jël ay boxeur te nee na ma bu ma ñëwee Ndakaaru. fu wul li taxaw bañ may ko sëriñ dinaa yëkkati xaalis bëri teg ko ci kanam sëriñ te dañ ma ñaanal te dinaa ko jàpp te dinaa ko dóomu par de ko daan man nag wax dëggu si yàlla samay sëriñ xaalis yoon jënd man samay sëriñ da damay ànd ak ñoom ñu yàgg barke alaaji Fallu sama saa Tuubaa mi mu yaakaar barke mu xam na ah de bu Sa Touba mënoo ko kon nag ko ci buuse. non dañ ne wulli. Samba Ndour Sa Touba. Samba Ndour Abdoulaye Diop xaas ay xaritu buuse la ñu. buuse xamu ko Samba Ndour. billahi wallahi Sa Touba mii woo na sëñ bopp dey na ma nee na ma Touba ko jàppale. ah. <laughs> woo na sëñ Saalum Mbacké combat bi day combat boo xam ne. di dañuy bëri ci lamb bu rëy xam nga tey diggante Amady Sène ak Tapha Tine day combat boo xam ne nii Baye Ndiaye dugal ñu ci loolu bu ma ko ñàkkee rek do do ma gaaw a amaat événement bu mel noonu. ma ciy bëre Tapha di ci bëre mbay gi di ci bëre. ak kéwél mhm. keroog jib Thiaw la maire la refan ne ma lu ma mës a def refan la laay def mooy lamb ji ma ànd ak waa commune bi yëpp. commune commune municipal bi yëpp ñëw stade toog. kon loolu barke Mouhamed même bu may dee du ma daal kon wulli mu war a jàkkaarloo buuse ci ci dina ma nga jàkkaarloo moom waa Bawol képp nekk sa ginnaaw ban wulli lañ nar a gis boo xoolee yaa ngi dama jeex waaw waaw parce que bëgguma jël du ko neb waaw gis naa état bëgguma rëy mhm. taxaw benn place moom mooy song di ma fa fekk damaa bëgg tuuti di ko nox ba mu réglé dama koy ñuul Muhammad wulli lii nga wax nii ndax mën naa ne dégguma dina ko ñuus ba mo rek la kan bouse. barke sëñ Bam pour man da ngay taxaw rek ben place mu bëgg la fa fek ki jëm dama bëgg a oyof mën bëré duma son ma sonn mën a xeex dama bëgg a xeex moom man duma ko nab li ma def bëré wu songo songoo wu ma damay xeex moom. ah. bu doon saa tubaab da ko ñaan ak xaalis damay tiit ndax kon tam jar ko la koy mais comme du ko ñaanal lolu man damay xeex moom. wulli. wala lii ngay wax nii Boucher ngi amerique di entraîner te li may wax nii wóor la Lamine Seck ñaari boxeur la jël yu koy préparé. keroog gis naa ni muy xeexe man na kii ay ree la ma def biiram bii bari que Alaaji Fall bu ma dama koo bëgg a dóor ba mu daanu. laa ilaaha ba pare fadam ah bu ñu de. xam nga Mbaye Diop dafa xew gën a daan. da koy yóbbu buusee koo jënd. na ko xam nga léegi. buur gi dàq na ko voilà. buur gi aussi. waaw waaw. dégg naa mu wax ci comme Ama Baldé Modou Lo. waaw waaw. ñëpp di ko xaas. yow itam Fadam dégg naa ngi wax ci. nit ñi nañu xam ne vraiment ku ne am nga. ku ne am nga droit. analyser ku ne am nga droit. wax li nga gis. Mm-hmm. léegi la ngi ne ma damaa jeex. Mm-hmm. mais tey ku mbër bu jeex boo ñëwee mais tey yéen ñii di rapporté ba yéen ñii di ay journaliste bu ngeen mënoon la gis ñaari mbër ne kii laa gis mu gën a pare wala kii moo gën a ci état mais kon ngeen liggéey la ma sa liggéey. Mm-hmm. la liggéey nanu bay ku farak mber ba pare man chaque jour du gis mukk bëri bi wax ñi ci gën bëri rek laay wax kenn nag laa ciy wax muy Pape Sarr man dafa ko bëgg parce que bee bi rek liiru jaan dafa farak man boo xam ko mu bëgg ma itam di ma supporté bu baax a baax a baax xaalis Pape Sarr dama ko conseil na bay li muy wax parce que aussi kilifa la mhm. li mu wax dem du wax du waxi kilifa Pape Sarr na bay wax yu rëy yi muy wax. parce que non Pape c'est sama waay la non amul problème. mais nag ba leen jaxasee yow Pape Sall laa wax. kon nel kon nel kon nel. pas ay bi bi bi bi kër damay wax damay rek li ma xalaat parce que dama dégg mu ne buur géwél bu mu ñëwaat ci Pikine. bu mu ñëwaat ci xam loolu wax bu rëy a boo xam ne. kenn waru ko wax ci rew ah. rewum droit ah, problème fa fa dam mais xam nga la <laughs> rewum burgel bu ko nexe def Pikine parce que Pape Sarr moom to te Pape ñu njuumte la rek mu ngi def lu graw parce que dam mi tay bu demee Pikine tay ñu ñu ko fa ah Pape Sarr y'a problème nan fa dam sax amaa la faral ah te dañ naan Fadam sax amaa la faral ñëpp loolu la ñuy wax non xam mu faral sax mais <laughs> Pape Sarr li mu wax vraiment nay defaat wax bi kilifa nga xam ne kilifa nga di wax waxi kilifa lamp bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Pape Sarr daal vraiment li mu wax dem anduma ci fadam bu la neexee analyser loo bëgg analyser ku mu neex analyser mais léegi loolu tàggatoo ci sa digganteeg Boucher ndax xam nañ ne combat bi ñu ngi wàcc dugg ci mois de novembre te daanaka le 12 novembre jege na ba pare te ni ma la gisee nii xam nga ne combat bi oyof bokk na ci li koy gañe te gis naa la yaa ngi oyof trop waaw te waaye nag bul fàtte ne yaag Boucher euh, Samba Ndour ca Touba nitu Boucher la Alaaji Sa Touba mii toog suñu wet nitu Boucher la Ablaye Diop Xaas mii sa wet moog Boucher minante nañ lool te ku minante Balla Gaye war ngaa mën a miinanteeg Boucher kon nag wuli su ma la gisee yaa ngi cay risque xam naa ne machine la nga am Malika te <laughs> machine la am na la ko doy. man yéen a la yàlla suñu borom mi nga fàtte moo ànd man <laughs> nekk sama xarit dama bëgg. ngeen gën leen ci kon muy xaas sa Touba sama nduur ñooñu dama la ne damay bañ a wax rek li ñu seq bëgg ma ko ci télé mais barke Seydina Mohamed seq nañ loo xam ne ba nuy seq ay teranga création defe naa kër yëpp seq ko mais nag nit ku baax aussi comme nit ku baax rek nen kenn du ko om le da nga koy may ne ñëpp ñi ko xaaj noonu la mel saa ba noonu noonu la mel dina baax ñëpp mbir yëpp ay seen seen seen mm. xarit mais combat bi dama la ne combat bu ma mës a am ci àddina mm-hmm. combat bi laa gën a fonk combat bu ma mës a am combat bi laay gën a jël au sérieux wulli daan na buusi fan la mën a yóbbu buusi wulli kilifa yi may woo bëgg ma ko na wax kilifa yi may woo mm. di bëgg ma jàppale ak di ma wax ne yow laa faral barke sëñ ba ma ko di gërëm aussi moom Mouhamed Ali Ndiaye. ndeysaan ça bouge pas. xaas. Mhm. Mouhamed Ali daf ma booleeg benn sëriñ bu bu mën ñaan. ndeysaan. ba pare nee na moo koy fay vraiment Mouhamed Ali Ndiaye. Mhm. maa ngi koy gërëm bu baax a baax. petit promoteur aussi. nee na ma dañ dem dëkk ba petit promoteur xaw ma nag lan du xew man moom moo ma woon ne ma il faut dem euh, ngay Aline Sylla. Eh. ak yeneen kilifa yoo xam waaye Boucher daan na wulli. loolu nga bëgg tudd am. <laughs> bilaay loolu nga bëgg xam naa <laughs> ay waaye Boucher daan na wulli nga xëy da ngay daanu ci sanab bi daanu ci YouTube bi daanu <laughs> daanu xamal ne ñaata site nar a xëy bu wulli bu sàgganee bu daan ko ñaata site ñoo nar a jël Boucher mu wax te xam nga waxi Boucher du fay. loolu est-ce que xam ne loolu lay xëyee moom même même bu may entraîné loo nekk sama xel mi mooy que. bu ma buusa daanee fan laay jëfati ak fan laay waxati loo tax comment bi nag. jërëjëf comment sérieux ci ma jërëjëf doy na sëkk jërëjëf.